aayaat yooyu muy jàng dafay mottali fukki melokaan ak ñett tolloog fukki aaya ak ñett yu yàllay wax ci munaafiqiina yi door leen dugal safara waxoon nañ démb ne kufru ñaari xaaj la am na lu ñuy tuddee kufrul ni'mati am lu ñuy tuddee kufrul mi kufrul mun'imi googu di ñeenti xaaj am na ca xaaj gu ñuy wax kufrul inkaar ak kufrul juxuut ak kufrul inaat ak kufrul nifaaq kufrul nifaaq googu nag la yàlla jël démb ba léegi ci lañ nekkoon yàlla nag gannaaw ba mu waxee seen bon bon ya ñoom munaafiqiina yooya mu bëgg a jeexalee seen mbir ci ñaari melo ci ñaari misal ñaari yo ya bu jexé rek mu duggal leen safara nak doora wax ci leneen lamuy waxat misal mu ñëk mi dafa leen a ak nit ku doon tukki dema dem ba ci bir tukki mi taw dab ko ci àll taw ba and ak lëndëm and ak sedd and ak ngalaw mu nekk ci ñetti lëndëm mi ci lëndëm ak nekk ci lëndëm ak guddi nekk ci lëndam ak taw dana aajowoo lumière bu ko mën a niital ba mu mën a xam fi muy teg tànkam ndax mu mën ko yóbbu fi mu jëm dana aajowoo tamit safara wum taal wu mu mën a jaaroo safara woowu muy taal nag moo koy may ñaar yëpp ci lay mën a jaaru ci lay mën a niitlu yàlla dogal nag mu am safara rek am na matt am na almet taal ba commencé jaaru ba xam fi muy teg tànkam rek safara wa jékki-jékki fay xam nga kon koku nek na ci natt bu metti metti mu ñakkon ko sax ta amut ko mo gënoon mu am ko ba ci kanam mu dor ko ñak yalla nak lool la bëgg misal mu ne non lañ mel lim ci namm ba tax mu wax loolu dafa bëgg wax ne nekké am na fiq tudd nga batu cede bi batu cede bobu dafa melni dafa la jural ben lumière lumière bi la jural moomoo ko me dang ko ab ndax gëmoko la ilaha illallah nga wax tax na ñu ñi dootuñ ak yow bu ñu xeexee dañ la jox ca màng ma soo amee doom bu jigéen dañ ko takk bu jullit ñu amee doom bu jigéen dañ leen takk secret yañ doon wax ci seen biir duñ la ci nëbbu dara kon yaa ngi ci leer waaye leer gi nag da koo abbu dafa mel ni loo abbu ci baatab laa ilaaha illallaa boo gëmul ndax li yonent bi nag umirtu an uqaatila naasa hatta yashhadu comme shahada am na nag kenn du tut xeexateeg yow nga gis tamit kuy kuy niitlu ci leer gu mën a doon rek lumière boo mën di lu nga yëg nga ñàkk yëg da nga koo àbb boo ne damay nitlu nooy lu nga ne ci lampe lampe lan lampe courant kon courant bee la ko abal wala nga ne damay leer leerlu looy leerlu nga ne ci lampe torche bi kon bi moo la ko abal wala nga ne damay leerlu ci looy leerlu nga ne matt mi ma taal kon su boobaa loolu lépp moo ci dara dañ la ko abal kon loolu ni la leer gi abalee loolu ni la waa ji tamit baatab laa ilaaha illallaah fa mel ni moo ko abal leer googa mu am sécurité léegi nag sécurité ba dana jeexi kañ lay jeex bu dee bu deeyee na day foone jàmm jooju mu amoon ci kaw suuf jullit ñu joxoon ko ko jàpp ne contrat la buñ signé woon ak moom muy foone leer ga dana ko fekk ci biir bàmmeel la mu ñëw fekk bàmmeel ba lëndëm turus jullit ña ñoom seen bàmmeel ya leer muy jéggi siraat foog ne dana leer ba maanaam siraat lëndëm lool mu gis jullit ña lumière baa ngi leen leeral ñuy dem baa ngi leen ñaan sax ne leen du ngeen ñu du ngeen ñu xool ngir yàlla ngeen may ñu seen leer gi ñu di leen déedéet maanaam naq tamit min nuurikum ñu ne xiilar joxo waraakum foofa fekk dara nekkul fa fekk ñooy naqtabis min nuurikum nunaqil a waraakum kon leer ga di la leeral fii la lay jëriñee ci àdduna ba ba ngay dee boo xasee dee ñu coupé leer ga ci bàmmeel coupé ko tamit ci taxawaayu bis penc ci coupé ko tamit ci jéggi siraat mën nañ koo coupé sax bala ngaa dee ndax bu la bu yàlla weeralee yonantu bi ci yow rek sa mbir ma yàqu waaye loolu ti mën nañ koo dégg ci naafeq ak suñ jamono jii boo nekkee ab naafeq nit ñi xamaguñ la man ngaa yaatu ci penc yu bari ngay wax gaa yi di wax di jël ngay jël seen kàddu kenn du la nëbbu dara ku la gis du nopp waaye boo demee ba ñëpp xamee la na yow am naa fekk nga da ngay toxal wax di jaxase ku la séenatir dañuy wax ne dañuy wokkante ne ah diwa ngi ñëw wee boo defar leen jotaay yi xam nga foofa boo ca yeggee kon xat nga yaa ngi ci ak lëndëm te loolu suñ penc mi ñuy yegg foofa bëri na lool waaye boo gisee tamit yàlla niroo la leen ak matt mu taal wax ju am balaaxa la ndax ki ki nit lu ba tax mu taal mat bu bëggee léram ga sax fogg mu xam bu mat ma rek bu mat ma manqué rek lér ga fay kon moom mi timit di ku gëm ku ne dama gëm yalla nek am munafiq ba tax mu doon lérlu li tax léram ga fay da xambé hun matam pas-pas ak matam jëf ju deppok lam fas lolo waral lamp mo waral manam lumière ba fay kon mom bo bëggee sa lér gi nek fi dé ko del del jël mat di ca def bu mat ma manqué rek lér ga fay ki timit matam pas pasam mi mo manki ak matam jëf ji wara dëppok pas pas ba ndax mu nekk lu mëna wër loolu tax ni manam mbir ma yaq mom la yalla di wax sama borom ne masaluhum sen sen melo ñom munafiqina ci sen sen ga sen melo ka masali ladi dafa melni ki tukki kat bi nga xamne dafa tukki ci ak lendeum bu ko defee istawqada mu taxal naaran safara ci ak lëndëm falamma addaa at ba nga xamee ne leeral na moom safara wa maa xawlahoo la ko wër ba mu nekk ci sécurité foofa rek zahaba faagaagal laahu yàlla bi nuurihim ci seen leer ga wa tarakahum mu bàyyi leen fii xulumaatin mi nekk ci lëndëm yu rànkali ko laa yubsiruuna duñ gisati mukk la leen wër leen ko yóbboo summun ñoom de dañoo tëx ba mënuñoo dégg dëgg dégg nangu bukk mun way muuma lañ ba mënuñoo nangu ba mënuñoo wax dëgg xum yun way gumba lañ ba mënuñoo gis dëgg foofu ñoom daal laa yar ji wax na duñ dellutu mukk ci seen nifaax googa ci lii la ñu nekk ba dee kon gis nga yàlla ni ko misaalee leer na nàññi mi ngi njëkk wax boo koy jàngataat ka masal la fi istawqada mu tëgg ko istafaala mais tëgg gi dafa gàcci istawqada boo ko jëlee ci maanaam mooy kuy sàkkoo taal ba nga safara dem di wuti matt ba nga safara dem di wuti almet kon yaa ngi sàkkoo taal mais boo amee almet am matt amutoo sàkkoo taal da ngay rek moo tax kon tëgg gi dafa gàcce da ngay wax rek awqada mu ngi mel ni ku tukki woon ci ak lëndëm jàllar ku am jumtukaay yëpp ba tax mu taal safara ba mu taxalee nag yàlla ne falammaa adaa'at maa hawlahu ba mu taxalee ba safara wi ñëw leeral ko la ko wër foofa rek zahaba laahu bi nuurihim ñu ne lan moo waral waxut zahaba laahu bi diyaa'ihim te falammaa adaa'at la waxoon booba kat bi diyaahim lañ doon déglu ñu ne diyaa u moo gën a matale waaye leer moo gën a jagoo te yàlla ko xam balaaxa la ci waxin leer maanaam diyaa u mën nañ koo faagaagal mu dem leer ga des fa waaye leer bi buñ ko faagaagal rek diyaa u day demaale moo tax mu ne zahabalaahu bi nuurihim bu fekkoon dafa ne zahabalaahu bi diyaahim kon di daw ubba mooy dem mais nuuru bu dafa fay des waaye boo yoree torche boo xam ne làmp ba moo burle batterie yo vide foo jëlee tee leer moo leen dal dootoo mën a ti jeex na mu maanaam kon ñaareel bi tamit yàlla tamit waxul ne lu tax bam ne euh, maanaam falamma adaat ma hawlahu mu ne zahaba allahu waxut bi niiraanihim mais bi nuurihim la wax lu tax kuy taxal safara safara taxut kuy taxal safara leer a tax waaye kenn taxalut safara ngir safara kon ngaa taxal safara bi ngir bëgg cee leerlu moo tax bi mu taxalee safara bi ngir leerlu rek yàlla yóbbu leer ga waaye waxut ne yàlla ne waxut ne ma yóbbu ma yóbbu ma yóbbu safara kon yàlla waxam lu lu foor a foor la wa tarakahu mu bàyyi leen fi xulumaatin ñi dellu ci lëndëm gañ nekkoon foofa sax benn xulmatu lañ nekkoon waaye léegi da koo jamoo faat dañu delluwaat ci lëndëm ndax amoon lëndëm ba ci kanam nga ñàkk ko am leer ba ci kanam nga ñàkk leer go nekk ci lëndëm ñàkkoon ko faw moo ko gën moo tax mu def ko maanaam fi xulumaatin laa na ci la ñuy nekk nag yàlla ne dañoo tëx dañoo gu dañoo dañoo euh, dañoo dañoo nekk ñu tëx ba mënuñoo dégg dëgg dégg ak ñu nekk ñoo xam ne dañoo muuwa ba mënuñoo wax dëgg gumba gumba goo xam ne gumba basiratu la te amal saar ji mu waxoon moo leen dal ba tax mënuñoo nangu dëgg yàlla nee na nag li ma wérta leer ci loolu la ñuy nekk ba dee kenn mënu leen a teqalikoog naafiq ndax jikko jikko la joo xam ne duñ duñ teqalikoog moom lool léeg-léeg nit ki am jikko joo xam ne loo ko bëgg-bëgg boo ko bëggee laayi biir sama def la noon mënoo ca dara day deexaaleeg jikko ji rek yàllaa ko ko mooñaale mënoo ca dara lii nag moo dal ñii tey misaal moomu leer na muy indiwaat nag beneen misaal mu gën a leerati mu ngi leen misal nak lan nag dana ñaareelu misal ba mbolo mu doon tukki mbolo mu doon tukki ba ci kanam rek taw fekk leen ci Allah taw boba nak dafa and ak dënd taw ba dafa and ak melax su dënnee rek ñu jël seen poli baram yi duggal ko seen bir seen paxi nopp yi ndax dënd mën na yobbu sa sa dégg gi su melaxé rek ñu gëm seen ya bu démé ba melax ci lañuy mëna dox tuuti mana a xam fi yang teg seen tànk yi ndax lan dem gee tax bu demee ba melax gi ne kabaj fay rek ñu taxawaat loolu nag wax joo xam ne ju sew sew la la yàlla lay misaale xam nga bu ne dañoo mel ni mu tawte taw ba da koo niraleeg alquran yi wàcc ndax taw bu ko ci kaw wàcc li muy def ci suuf dafay dundal suuf gàncax sax gàncax naat nit ki ko koo jariñu jëmmam dund alquran yi wàcc la niraleeg taw ndax aaya alquran yi tamit bu wàccee ci jëmm ji dafay dundal xolam dafay dundal rooxoom moo tax mu ne la aaya maanaam ak taw bi taw tamit bu ñëwee euh, dana ànd ak ñett dana ànd ak lëndëm taw boo xam ne dafa ànd ak lëndëm lëndëm kese da ko bañ ba jamoo ko dafa ne maanaam fiihi xulumaatun waaye mu ne taw ba tamit wa raxdun mu ko wa barqun mu mu ko jël maanaam lëndëm gi jamoo ko lu ko waral lii waral lëndëm ñett la kon faw ñu jamoo ko li waral lëndëm dafa limu lëndëm dana ko dana waral lëndëm nir dana waral lëndëm guddi dana waral lëndëm taw motax tax mu ne maanaam fiihi xulumaatun waaye nag melax ak deun likoy waral ben rek la motax mom mu mu mu fatal ko jamawut ko li waral melax moy nir li waral deun moy nir amul ñaarel niri ci ci melax gi ci niri lay baye ko melax gi timit manam dënn yi ci ci ci ci ci ki gi lay bàyyi ko ci miri motax waxut manam ruxut me mu ne raadu waxut manam buruq mu manam barku ñom ñaar mu faratal len me lendum gi nga xamne ne ñett moo koy waral su ko defé manam mu jamako ñu jël nak sen poli baaraam ya baram xaju ci bët bën nopp ma jaas la ñu jël sen poli baaraam ya nak bu bu rek ñu duggal ko ci sen bën bën nopp yi bu melaxé rek ñi gëmm sen bët ya ndax bëgguñ ko bëgguñ ko gis ndax la yobbu sen bët ya yalla nak loolu lay wax ci ni bu paré ñu gën ko leral moo tax mu ne aw wala seen melo ka sayibin dafa mel ni ki mbooloo mu tawte mu mina samaayi taw boo xam ne mi ngi tukkee ko ci niir yi fii aji nekk la ca eh, maanaam niir yooya walla nga ne fii aji nekk la ca taw boobu xulumaatun ay lëndëm yu rànkali ko wa raxdun ak dënn wa barqun ak melax looloo waral yajaaluuna da ngay def asaabiahum seen poli ya fii asaanihim seen biir bën bëni nopp ya maanaam min ah, mina sawaax ngir tatak dënd ya xadaral mawti ngir ragal dee waaye wallaahu yàlla muxiitun aji xalag la bil kaafiriina ci xéeféer yi yàlla mën na leen xalag na leen ndax lii alkande gu rey la kon nire la ne mbooloo mu doon tukki ba ca kanam taw dab leen taw ba booleeg ay dënn taw ba booleeg ay melax waaye dënn ya na ca dënn taw ba na ca taw dënn ya na mut ca dënn melax yi namut ca melax taw ba mi ngi ci namm aayee alquran yiy wàcc nireléeg taw day dundal roox dënn ya lam ca namm mooy aayee alquran yi ñëw di leen tëkku bàyyi leen seen ni seen nifaax gi ngeen nekk yéen a bon yéen a yées ak aayaat yi nga xam ne bu ñëwee duñ ko mën a dégg ci noona naka noonu melax ga ma ngi ca namm aaya yooyu ñëw di leen di leen di leen weer ndax boo nekkee ku taw ti nekk ci àll bi foo mën a nekk bu bu yàlla ji ne rey melax gi rek dañ la séen ci biir lëndëm gi ngay wago su jéggi lu lula lula la lu la ya, melax ga kon melax yi tamit eh, melax yi ah, muy aay yi ñu di leen leer daan dem ba leeral leen ba gars yi buñ toogee yonent bi sax dañ mën a dem ba ne kii ci la bokk kii ci la bokk ndax aaya ah, ya day ñëw dëppoog seen comportement moom lay niraleeg melax waaye aaya ah, yooyu di tëkku nag boo gisee mën a jaaxlu na asaabiyaxum aaya di leen tëkku duñ ko nangoo mi ngi dafa ci tukki wala mu bu dënd na muy ay di ba nga déglu dënd ya bu yi ya ya rek duñ ko déglu ndax yaakaar nañu buñ ko dégloo léegi tey ñu dugg ci diina ji naka noonu aayaay melax ya tamit bu ñëwee duñ ko nangoo xool ndax buñ ko doon xool di settantal di xool seen ayib ya léegi tañu ñu dugg ci diina ji waaye yooye bëgguñ ci dara yàlla ne nag man faagaagal naa leen baatab ihaatatu li gën a bëri bu ñëwee ci alquran rek xal alkande lay firi euh, baat boobu muxiitun mi bàyyi ko ci ahaata yu xiitu xam nga jàng ne wa uxiita bi samarihi euh, dégg nga jàng fële tamit ca surtout illa an yuhaata bihim foofa yëpp maanaam alkande lay firi moo tax ñu ne wallaahu yàlla muhitun aji faagaagal la bil kaafiriin ci xéeféer yi mi ngi mottali léeb wa mi ngi mottali léeb wa melax ga ak dënd ya mu ne yàkkaadu xaw na albarqu melax gi yaxtafu di fëkk absaaruhum seen gis ya waaye kullama adaa saa yoo xam ne leeralal na lahum ñaal leen masaw ñu dox masaw ñu dox fii ca leer googa wa ida aslama bu lëndëmalee alayhim waral leen xaamoo ñu taxaw yàlla ne walaw saabu sooboon laahu yàlla la zahaba mu faagaagal bi sam'i ci seen dégg yooya ñu bañ a dégloo aaya yàlla yi leen di tëkku comme ni mu seen dégg ya ci ci baatin mu mu mu faagaagalee ko ci saahir wa absaarihim bu ko neexoon mu faagaagal seen gis ya ci baatin comme ni mu ko faagaagalee ci saahir wala mu faagaagal ko ci saahir comme ni mu ko faagaagalee ci baatin lu tax ñu ne ko mu ne inna allaha naka yàlla xadirun aji xattan la ala kulli seen ci lépp lëf yàlla ni muy daanee aayaam yi rek moo lay daanee inna laa ala kulli shay'in qadir mooy tekki ne mën na lii lépp aayaay tëkku yi may wàccee ñi ban koo déglu su ma neexoon ma sakk seen nopp ñu far tax dootuñ déggati ma ma tëxal leen ci saahir comme ni ma leen tëxalee ci baatin ndax tax nañ ci baatin mënuñoo dégg dégg ak nangu aaya yii ñëw di leeral ñu bañ koo gis su ma neexoon ma fëkk seen bët ya euh, maanaam du gisati dara comme ni ma leen ko defee ci baatin ndax mënatuñoo gis dëgg ma mën koo nangu gis ak kon nak ñu ne ko lutax lolu mu ne man mi man na lepp te lolu ma wax lolu bokku na ca kon dafa bëgg wax ne bu ayé ya wàccee wax lu leen arrangé rek ñi dox ci ak bi bu ayé ñëwé ne mang mang da ngeen ko séddoo waalamu anama ghanimtu min shay fa anillahi khumsuhu la ca dess nak yeen ñi xeexi woon ñu ñu ñu kontaan bu ayé ya ne ko tuddu batar bi bu kenn xex ak euh bu leen ñaané soxna may leen ko su ngeen soxla doomam dem leen ngeen yu mel noona ñi nangu duñ ci am ak yonent bi benn problème waaye aaya yoo xam ne nag boo xamee ne ni bu ñëwee di leen tëkku aaya yoo xam ne day ñëw wax seen seen i mbon mbon yaak dem leen ci yonent mu xatt leen rek ñi taxaw wa ida doo ila allahi wa rasuli liyahkuma baynahum ida fariqu minhum muriduna waaye wa in yakun lahum alxaqu yaatu ilay muxminina yàlla nee na bu fekkee am nañ xaq ci loo xam ne lu ñu war a kaañu la rek ñu xommatu dem jëli loola waaye boo xamee ne daneen rek loolu mooy melaw naafiq pire moo fi nekk tey ci suñ société bi koo xam ne bu neexee rek mu ànd ak yow dana la tagg ba taggal la say maam waaye bu naqaree rek mu roccee ko xas xas la ne ñaw xamoon na loolu mënu koo ñàkk dal loolu tey moo bëri moo bëri fees tepp mu mel ni aay ji tey suñu biir ndakaaru gi la wàcc lépp tey moo yàq entreprise yi moo yàq société yi moo yàq daayira yi moo yàq parti yi boo ca dem tas nañ nekk bu ca nekkoon benn parti soppeeku na ñeen fukki parti yëpp tey jaxase rek ak toxal ay wax moo koy waral yóbbu loolu ba lépp yàqu tey kon yàlla ngoog ca munaafiquna yi su ma waxee nag waxu naa la mu ci ci ci ci ci kéeféer ak nifaaq ci jullit seen séparation waaye aaya buñ ko waxee rek mu wàcc ci ab xéeféer yàlla di ko xas ci aw melokaan wu bon rek jullit bu nekk war naa daw melokaan wa wax loolu moom waaye bul wane ne ñoo ñoo ko moomoon rek ñun jullit ñi moomuñu ko suñu yoon nekku ci déedéet bi umumi lafzi laa bi xusuusi sabab dégg nga kon la ca tegu muy aaya ji bi mu commencé téere beeg léegi ñetti kuréel la tudd tudd na jullit ñi muy kuréel bu njëkk bi gën ñeenti aaya dugal leen aljana di ko dore ci hudan lil muttaqina ba ci ulaayikul muflihuna jullit ñaa ko moom dem nañ aljana mu jël ñaareeli kuréel bi ci kem ñaari aaya dugal leen safara inna lisna kafaru sawaun alayhimu ba ba muy jeexee ci ñaari aaya mu dugal leen safara mu jël ñetteeli kuréel bi di munaafiqiina yi ci fukki aaya ak ñett ba tey nii dugal na leen safara seen mbir jeex yàlla boole waat ñetti kuréel yépp nag digal leen benn digal ne yéen jullit ñi maa ngi leen di digal ngeen sax ci wéetal yàlla su ngeen bañee yàqule yéen xéeféer yi su ngeen bëggee baaxle bàyyi leen seen bokkaale gi ñëw wéetal yàlla yéen munaafiqiin yi saxal gëm yàlla ci seen làmmiñ weddi ko ci seen xol na ngeen fexe saxal ko ci ñaar yëpp bu ngeen bëggee baaxle moo tax mu ne yaa ayyuhan naasu ubudu rabbakum ñett ñëpp a ko bokk aaya ji màkkal màkka màkka bu ne naasu nag ñaareel donte Madina la wàcce li gën a bëri Makka lay wax ak waaye mi ngi wax ak ñetti kuréel yëpp la bëgga a wax moo tax mu ne yaa ay ayyuhan naasu xée yéen xéeféeri Makka yi ubudu na ngeen wéetal rabbakum borom seen allazi borom ba nga xam ne xalaqakum moo leen sosoon te nekku leen woon dara wallazina moo sos ña nga xam ne min qablikum jiitu woon nañ leen la laallakum mbastale yéen tattaquuna ngeen teetee jaamu ko ci mbugalam laa laallakum hóor na naññ ne su ngeen ko wéetalee maanaam tattaquuna da ngeen da ngeen da maanaam da ngeen teetee jaamu ko ci mbugalam da ngeen teetee wetal ko ci mbugalam ku yàlla mu ne alazi mooy buur ba nga xam ne jaala def na lakum ñaar leen al arda suuf firaasan mbir mu muy nekk di lal bu la neexee taaw bu la neexee toog bu la neexee tëdd wa samaa moo def asamaan binaa an muy téeg wa ansala moo wàccee mina samaa yi ci niir yi maa an taw fa axraja mu génne bihi ci taw boobu mina samaraati ci xeeti gàncax xeeti gàncax yi risqan muy wërsëg lakum ñaal leen kon nag falaa tajaxaloo bu leen def lillaahi ñaal yàlla andaadan ay ndend wa antum te mbir moomu yéen tax la mun a xam ngeen ne yàlla moom mooy ki bind ndend yooyu mën a ñoo bind tus kon dem leen ngeen wétal yàlla kon yàlla nee naa yéen jullit ñi sax leen ci wétal ma bu ngeen bañ a yàqule yéen xéeféer yi bàyyi leen seen bokkaale gi ñëw wétal yéen munaafiqiina yi bàyyi leen seen li ngeen di feeñal taf bokkut ak li ngeen nëbbu ngeen ñëw wéetal ma ndax damaa def dama leen damaa def ñaar dama leen a defar ba pare defaral leen bu ñu defaroon te defaralul ñu ñu mën a wax bu ñu defaraloon te defarul ñu ñu mën a wax waaye ñaar la ñu defal lim njëkk mooy dañoo njëkk a defar ba pare door ñoo defaral defar gi mooy maanaam euh, yàlla moo mu ne allazi xalaqakum wallazina min qablikum maa leen defar créé leen te xooluma leen fenn maa jékki-jékki rek créé leen xooluma leen fenn maa créé woon ña leen jiitu woon ci aadama ba ci yéen ñi kon nag su ngeen nekkee ci wéetal ma rek ak jaamu ma jaamu googa xamul sikk na dañ leen dimbale ba ngeen mukki ci mbugalam àllaaxira ëllëg laallakum tattaquuna gannaaw bi ma leen defaree ba pare dama leen a defaral defaral gi mooy allazi jaal lakumul arda maa leen defaral suuf mu tàlli yaatu loo fi yàgg-yàgg du la sàppi bu la neexee daw bu la neexee toog bu la neexee tëdd bu la neexee jaaxaan bu la neexee sukkandiku dara foo nekk lu mu neex neex boo fa defee deux heures de temps rek mu naqari duggkati avion yi xam nañ ci dara loo bëgg-bëgg avion ñu naan nguur ak avion wallaay boo ci defee ñaari waxtu wàcc rek ngay bëgg boo duggee ci bato bii ñaari waxtu ñett wàcc rek ngay bëgg boo duggee ci oto bii maa ngi jëm Kaolack bala ngaa yegg wàcc rek ngay bëgg waaye suuf nag mooy koo xam ne ku ko war doo ko bëgg a ku kuñ la tàggee ne wàcc na ko sax nga ne yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee ñu ak loo fi yàgg yàgg nag te doo yëgati ne ku yàgg mënta yàggati waaye sa yoon nekku ci boo xasee yàgg mënoo yàggati waaye ku dee ra nga ne yàlla na ko yàlla yërëm te yéexee kon maa leen defal jaal maanaam allati jaal lakumul arda firaasan mu mel ni lal comme lal bu la neexee tëdd bu la neexee toog yëngatuwut ba ngeen ni am ay problème mais suuf dafa dal rek te suuf ànd ak loolu lu ngeen leen neex ngeen sëf ko yéen ko sëf seen bâtiment yi dëkkee ko yéen a ko sëf seen oto yi war ci kawam yéen a ko sëf maanaam seen bagaas yi nekk ca nekk ci biiram te moom mosul woon ko ma nga ca lam nekk rek wa ba tey ma defaral leen wa samaa binaan ma jël asamaan si def ko muy ab téeg tiim leen yéen ñëpp bu fekkoon ne asamaan si tey nit ñu tiimee doole jëm am dafa daanu suñ kaw ñeen ñi torox waaye yàlla téyel ñu ko rek ànd ak loolu boo loo xool xool doo doo doo gis benn fissure lépp baax lépp a maa tara fi xalqi rahmani min tafawuti farja il basara hal tara min futur doo fa gis dara yàlla moomu tamit yow ma ci ci asamaan si waaye niiri la ci namu ma génnee leen ci ndox ndox mooma tooy xepp ci suuf si suuf soo sa ñëw génne leen ay gàncax yu wuutee kenn ku ci nekk ba nga bëgg rek boo boolee bëgg yëpp tamit mu nekk di la jariñ yi gàncax ñëw saf suukar yi forox yi saf kaani yëpp mënta ñàkk benn bu ci nekk maa leen ko defal ta menn ndox laa ko arrosé waaye loolu liñ ciy mën a déggee ki mën a jël fekk suuf su dee mu jël ndox dugal ko ca wàccee ko ca mu tooy xepp sax gàncax waaye kooka bu ne la boo deexee mën naa laa dekkil nga war koo mën a gëm loolu rek lañ ci mën a déggee fa axraja bi fa axraja bi mina samaraati risqan lakum kon waay waay bu leen wutalal ci yàlla nderd ku ngeen koy mën a wutal naan di ko jaamu mënta bind tus weñ sax mënu koo bind kon nag su boobaa dem leen jaamu ji yàlla mi nga xam ne mooy ki bind ki bind di wërsëgal di ray di dekkil di fay rek moo xeeyoo jaamu keneen ku dul loola boo ko jaamoo da ngay perte kon loolu la bëgg a wax mooy aaya jooju li ci teg nag dafay wax ak waa Makka yi di wax ak àdduna bi yëpp tamit di leen dëkk ci alquran ndax bi yàlla wàccee alquran ci yonantu bi sallallahu alayhi wa wax nañ ko juróom-benn fukki hisib téeméeri saar ak fukk ak ñeent xéeféer dañoo commencé di wax naan ah in hadha illa qawlul bashar lii waxi mbindeef rek la yàlla ne da ngay ne xëy seen bopp nag su fekkee waxi mindeef la yonent bi mindeef la di arab andil leen ma benn saar xam nga benn saar la wax fii waaye saar woo xam ne dafay bàyyeekoo ci ku mel ni ki indi saar wi ku mel ni ki indi saar wi nag mooy faatu bi suuratin ku mel ni ki indi saar wi mooy yonent bi ummi yu la manta bind mënta jàng boo bindee jox ko du mën a liir seet leen ci seen biir ngeen tànn benn ummi yu indil ma ko bu mën a indi saar wi mel ni moom moo tax mu wax fii ne min mislihi jóge noonu la ci namu am na foo xam day wax ne faatu bi suratin mislihi foofu foofa nag moom dafa dëkk mbooleem bulakaaw yi ak fusahaaw yi yéen ñi am balaax am fasaha yéen ñëpp ànd leen ngeen fexe ba indi benn saar bu mel ni alquran mënuñu ko fekk nag njëkk loola dafa leen njëkk dëkk ci fukki saar am na fu mu waxee bi asri suwarin mislihi muftarayaat mu wax leen loola mënuñu ca dara yàlla ne waxatuma fukki saar wàññil naa leen juróom yi indil leen ma benn rek benn booba nag ñaari dëkkee ci am benn ba andil leen ma saar wu mel ni alquran ci balaaxa ci usloob ci solo lu fàddu lu ñëwagut ci wax ju am ren ju am ju dijji di ju maanaam ju meññ ji ju sakkan ji andil leen ko beneen dëkk bi ci baqara nag mooy andil leen wa wenn saar woo xam ne ki koy andi dafay mel ni ki andi saar wi comme da di wax ne moo ko andi na nekk ab ummi yu ñett yooyu mënuñ ca dara ab ummi yu ci ñoom ba mën a andi saar xamut ku dul ummi yu ci ñoom ñëpp buñ dagalee mënuñu andi saar kon nag li ci teg kon nag mooy qul in ijtamaatil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha alquran laa yatuuna bi mislihi walaw kaana baaduhum li baadin zahiran bu ngeen doon sotlaante yéen nit ak jinne tamit di jokkalaante seen i wax mënu leen a indi dara lu mel ni alquran moom lay wax si nii moo tax mu ne wa in kuntum su fekkee da ngeen a nekk fii raybin ci sikk mimma nasal naa ci li nga xam ne wàccee nañ ko ala abdinaa ci suñ jaam bi di sayduna muhammad kon nag faatoo andi leen bi suratin ci saar min mislihi mu tukkee ci ku mel ni yonentu bi nekk ab ummiyu min mislihi mu mel ni alquran fu ko defee tamit def leen loola maa leen ko wax andi leen ko waxuma yéen rek waaye waddoo na ngeen woo shuhadaakum seen xiram yi min dooni laay ñu dul yàlla ñi ngeen wax ne yàlla lañ te duhun yàlla xoo leen leen ñu dimbale leen ci wadoo na ngeen xoo suhadaakum seen yàlla yi min dooni laa ñu dul yàlla ñu dimbal leen ci in kuntum de nekkeen saadiqiina di way dëggu ci ne yonantu bi moo créé alquran indi leen ko kon yàlla ne fa in lam tafaaloo su fekkee defu leen ko ci li teew nii walan tafaaloo te du ngeen ko def mukk ci lii ñëw ba bay àdduna bi tukki kon nag fa fattaqoo na ngeen teetee gëm naara ci safara lati safara si nga xam ne waquuduhaa mattam ma annaasu mooy xéeféer ñi wal hijaratu ak doje ya ñi jaamu uidat xadoof nako lil Ya ñel heferi yalla kenn du mom comme nak mënu len ko ci li tew te du ngeen ko man ci li ñew way way kon ñew len ngeen jébbalu nak nangu ko bala ngeen tabbi safara wi nga xamne ne ma moy yeen ñi di heferi matam ma moy timit xiréem ya ngeen hetton jamu. jaamu antum wa ma taabuduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun Amna ayu mel non ju wax lolu kon nak Eh, lu mel noonu kon na ngeen ko daw balaa loolaa ñëw kon lii bokk na ci ijaasul quraan xoolal lii tey ah, màkk ni ñu fasaaxee arab yi niñ mënee wax ak nit ñi niñ mënee xewil niñ mënee xewil wax wax joo fi wax balaa mat ñeenti at juróomi at gaa yi xewil wax jooja indi jeneen wax te ba léegi mënuñoo fexe ba xewil alquran loolu yéeme na nit ñi niñ mënee toppandoor lu ñu dégg ñaareel man koo toppandoor moo tax piraag yi bëri sax ba gaa yi di ko interdit loo def fa ñu piraag ko waaye gars yi li ñuy for for mënuñoo piraak alquran kon loolu jar jar naa laaj lan la kenn mënu koo piraak benn waaju texeexa di ñàkk solo di Musaylimatul kazaab moo ko doon jéema a piraak te xam nga yàlla bu ne def leen yow mënoo def nga ñàkk a def dese kumpa moo gën ngay def def goo xam ne day feeñal sa tële moo gën ba yàlla ne waaw indi leen ma fukki saar mu ne ah fukk de moom mënuma ko dina topp toppandoor benn saar ne day toppandoor maanaam wan naafiaati ne yàlla lu wax ñu defane dafa ne wan naasiaati xarqan wan naasitaati nastan mu ne ay kon kay dama koy topp ndoor man maa ne wassaariaati saraan wal xaasidaati xasdan wa taaxinaati taxnan xam nga loolu du waxi dara maa ngi gëñ ne mbay mi mbay la maa ngi gëñ ne ngóob mi góob la maa ngi gëñ ne bojj mi nit ñi bojj bojj la kooku du waxi dara xam nga yooyu wax yooyu sax boo ko sa doom yi ne njëkk a ree moo tax wala maaw balaaxa di ko ree ne rakkikatun fi lafdiha wal maana ka qawlihi wa taaxinaati taxna wax ju amul solo la amul bopp amul genn parce que li tax alquran naqaree toppandoor boo ko doon toppandoor da ngaa war a wax ne yow ci looy toppandoor luñ mën a toppandoor day fekk mu nekk genn fànn alquran bu doon téeréeb genn fànn faw nit ñi mën ci dara loo téere bi nga ne téeréeb kon dana ci am ñu ci mën dara ndax nit ñaa ngi taalif ci luxa bu doon téeréeb siira faw gaa def ko am na ñu bind ci siira lu yéeme bu doon téeréeb tamit naxu faw gaa def ko am na ñu bind ci naxu waaye alquran den kenn dafa xamul téeréeb lan la moom daal téeréeb lépp la naxu la moom balaaxa la moom moom maanaam ma usul la fiq la médecine la moom daal téeréeb lépp la lépp na ku ko mën a topp la mu ne ko moo tax amul kenn ku mën a téye daa yow téere bi ngay ren la alquran nga ne alquran mooy lan nga ne mënoo koo wax mënoo wax lan la lépp la kon téeréeb lépp la waaye bu doon téeréeb lenn rek far force am ñu ko topp door kenn mënu ci dara yàlla wax naag ñoom foofa ba léegi nag ñëpp tiit nañ tudd na safara ba ñëpp jàq yàlla ku mën a waaraate la bu ne safara safara ba ñëpp tiit nag dafay waxaat aljaana aljaana ba ñëpp békk kon ñi waare ñëpp war nañoo jàngee waaraate ci yàlla waaye boo fi nekkee timit nag foo toll safara ñaari baat ñett safara nga jëm mel ni yow da nga mucc yow mi koy wax gaa yi toxal seen ond ya waaye boo ne fi aljaana aljaana aljaana ti bu yàggee gaa yi dañu naagu nekk ci li leen neex waaye léegi-léegi da ngay boole diggante alxawfu wa rajaa li yi ragal a ragal ba yaakaar ne bu ñuy dem kenn kooka ñun lay doon léeg nga yaakaar yaakaar ba foo ne kenn kooka buy dem tamit ñun lay doon boo boolewul ñaar yi rek du baax moom lay wax si ni aljaana ndax ndax ñi mën a nooyewaat tuuti ndax xawoon naa tàng yàlla ne wa bashiri na nga bégal yow sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam allazina ña nga xam ne amanoo dëggal nañ wa ameloo ñiy jëf saalihaati farataa ci naafila yi na nga leen bégal ne anna lahum aji nekk la ñaan leen jannaatun ay tool te jiri yooyu dana daw min taxtiyaa ci ron taw tool ya al anhaaru sew nda yooyu ñeent kullama rusiqoo saa yoo xam ne wërsëgaleef na leen min haa ca aljana yooya min samaratin ci meññant risqan mu di wërsëg xaaloo ñu ne haza lii la fii dafa mel ni la nga xam ne rusiq naa wërsëgaleef nañu ko min qablu ci njëkk ñuy dugg aljana ak ñoo niroo yàlla ne wa uutoo joxeef na leen bihi ci wërsëg woowu mutashaabihan mbir muy aji niroo ci melo te huutee ci caf nga wala hum aji nekk la ñaal leen fiha ci aljana azwaajun ay soxna mu mutahharatun yéen yuñ laabal ci reegal laabal leen ci taflit ak ñandaxit ak dem wanag raabal leen laabal leen tamit ci jikko yu ñaaw foofa amul génn jigéen guy tàccu jëkkëram wahum ñoom xaaliduna way béel lañ fiyaa ci aljana kon aljana ngoog yàlla nee na yonantu bi bégalal sa candidat yi bégalal quota bi ma la may ci aljana ñooña mooy ñi gëm yàlla piir tudd ko seen làmmeñ parce que seen xol di ko jëfee ci seen cër moo tax amano fu ko alquran waxee rek wa amilu salaati moo cay tegu waaye maa gëm yàlla te du ma jëfee li yàlla indi kon gëmoo dara lay tekki kon meññant la moo xam ne léegi koy feeñal su ko defee nag yàlla ne ñooña comme gëm nañ te ña ngay jëf-jëf ju baax xamal leen ne leen boo lëggee aljaana la ñuy dugg aljana yoo xam ne ñu ne ñeent lañ am ñu ne juróom-ñett lañ su ko defee nag aljaana yooya yu bëree bëri la firdawsi ci la bokk yonent bi nee na moo ca dàq kuy ñaanati yàlla na ko ñaan yàlla firdawsi su ko defee timit illiina ca la bokk janatul mawa daaru salaam janaatu addinin tur yu bëri la waaye daal alhamdulilah fu ñu baax na nañ dem aljaana rek moom daal nañ dem aljaana rek aljaana mi tekki hay jeex na fu ñu sa na yàlla nee na ku ma dugal aljaana teral naa la waaye ku ma dugal safara toroxal naa la sama toroxal ci nit daal feeg xéggagul ma dugal ko safara rek toroxtaane ga des na waaye su ma ko dugalee safara deseetuma ko ci toroxtaane ci dara Euh, su ko defee nag mu ne bu ñu fa duggee nag dañuy servi ay ñam servi ñu timit tabaarakallaahu ay fur wi boo jisee muy wax fur wi toujours ci alquran arab yi dañoo bëgg fur wi trop moo leen gënal ci xeeti lekk yépp yàlla nee na nag bu ñu leen joxee fur wi dañuy saalik buñ ko xoolee rek bala ñoo ñam dañuy wax ne ah fur wi bii kay pom la amoon nañ ko ci àdduna bi orange la bi mandiri la waaye buñ mosee rek ne couleur yi ñoo niroo waaye caf nga yi duñ benn xaaju xaaju ñoo niroo ñëpp nga xam ne kon duñ benn su ko defee nag léegi foofu la ñu nekk yàlla du duma ci xem dinaa leen fa may ay soxna alquran moom da koo nakiraar rek wala hum fiha azwajun mutahara ah, ñenn ña nag ña ngay lim ne da nga xam lu man ñeenti junne ci ñu ñu tuddee jànq am ñeenti junne ci ay jeeg ñenn ña ne da nga xam lu ma téeméeri junne ci xuuru xay nii mais xalaa kulli xaal daal alquran moom da koo da koo nakiraar rek ne daal da ngeen am soxna yoo xam ne yu bëree bëri leen yemul ca ba mu ko nakiraale mu mu mu manuutal ko rek fi ne mutaharatun ñooñu duñ am reegal duñ am dom duñ tafli duñ ñandaxu duñ def dara mu ne sax tamit du ñuy ñaaw jiko ndax lélé nga denc fi ko xamné jikom dafa ñaaw da nga xamu nokoy def rek ñetti baan ñent mu taccu la wax la wax ju bon xass la te mëno ca dara koy gi ngeen am wala léeg-léeg koy sa goroya nga nga nga bàyyi ko ci kër gi rek fofa nak mom jigen jo xam dafa ñaaw jiko amut fa ndax bala lañu dugg ñepp lañu ñu opéré ñëpp rafet jiko bëgg bëggante wa nasakhna ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ko defee foofa moo moo tax kon mu ne wala hum fi azwaajum kon nag ña koy jéem a lim daal xam naa soxna ya bëri nañ waaye alquran daal moom da koo nakkiiraal moom limut ko aaya ji tegu ci mooy inna allaha la bu ko yàlla waxee day delloo ñaar dafay delloo musrikuuna ya doon wax ne buur bu day ni yàlla ñuy wax ne ku màgg la gën a màgg lu dul moom lu muy tuddee mbir yu xeebu yu mel ni ankabut ji tekki jargoñ ak lu muy tuddee weñ banaan wa in yaslubuhum zubaabu shay'an weñ ni mu xeeboo lu ci yàlla lay tudd ak lu muy tudd naan la kamasalil ci taxasal baytan loolu kon lu mu cay tudd yàlla tontu leen ne inna laa laa yastahi an yadriba masalan beneen bi day tontu munaafiqiina yi munaafiqiina yi ba leen yàlla melalee ci ñaari melokaan yi njëkk a jàng muy masalahum ka masali staqwada naaraan ak beneen bi aw ka sayib yi mi ne samaa yi ñu ne lii daal yonantoo ko waaye du waxu yàlla yàlla mag mu day ni moom du fi nekk di léeb waaye léeb yi yonantoo ñu ko wax rek waaye du ñun yàlla waxut ko yàlla nag tontu leen ñoom ñaar ci benn aaya ne yàlla yara sut di léeb ci loo xame ne nii lu lu xeebu ba mel ni weñ la wala mu xeebu ba mel ni yoo bëri na luy xeebu nga jàpp ne lu xeebu la ki gis-gis te fekk màggaayam kenn xamul ni mu toll moo tax mun inna laa laay sa adri masalan xoolal yoo boo demee ci benn téere bu ñu tuddee al mawsuwaatu zahabiya fi ijaasil quraan wa sunnatu nabawiya bu lay bu lay bu lay bu lay bu lay wax ci yoo da yéemu mu ne yoo moom kenn li muy tuuti tuuti lépp lu ñay di am yoo am na ko te yoo am na lu ñay amut yoo am na tànk am mbagg juróom benni tànk la yoo am te xam nga ñay nag ñeenti tànk la am te bindab ñay la amee ñoo niroo ba mu am juróom-benn tànk ñay am ñeent yoo am ñaari mbag ñay amul mbag ñay am maanaam ñay am bakkanam bu gudd boobu di xurtuum bi yoo tamit am na ko ñay am na benn geen bu nekk ca gannaawam yoo am na ko waaye yoo moo ko xëppalee ñaari tànk ak ñaari mbag te ñoo niroo melokaan ci bindin mu ne tamit yoo moomu tamit nga xam ne moom lañuy jël di ko xeeb ki ñu jàpp ne mooy ki gën a rëy nekk am ponkal yoo mën naa ñëw rek rof ko pikk bi rek léegi léegi léegi mu feebar ba mel nekkatul moom léegi-léegi nga gis mbër mu mu entraîné ba jàpp bañ jàppal ko combat muy toog di xaar yoo ñëw fekk ko fa rek pikiir ko feebar ba ñëw dugg ko mënatul dara dara bañ mujj fopp ko fomp combat ba kooka ka yoo yoo daane na ko kon yoo moomu li muy tuuti tuuti mën naa ñëw pikiiram bi mu rof ko gaynde mu dee mën naa ray gaynde yoo mën naa ray ñay Yo man na ray nit ko gëna reuy rëyu namruus mi ñi wax ku ko ray yo ko ray ak reuy go reuy gum doon reuy lu yëpp yo rek ko ray kon yo jarna xeb yo momu timit limuy joxe ci febar kenn mënu la wax ni mu ni mu jox amna benen febar bu ñu tuddé manam ci téré bu mu malaria bobu mu benn yo bu ñu tuddé onophilis mo koy joxe té lolu li mëna ray ci ay nit kenn xamuko benen biñu gëna xam moy siburu mu ne boobu yooyu ndaw yi ñokoy joxe siburu boobu tamit mu ne boo demoon benn réew bu ñu tuddee Ethiopia diggante maanaam ñaari at rek mille neuf cent li maanaam mille neuf cent soixante ba mille neuf cent soixante diggante ñaari at yoo yeeg yoo rey na fa fanweeri junne nit kon yoo yoo jarta yoo jarta xeeb kon lu rëy rëy rëy la te yoo moomu tamit li médecin yi def bu ñu lay opéré moom la yoo am médecin yi bañ la banañ laa opéré xotti sa biir bi dafa am luñ lay njëkk defal ba fofa dé dañuy ray sa sa der bi ba pare nga xamné buñuy bu ñuy xotti foofa kenn du ko yëg opéré ni metté bu lol amutoon musiba am yoo tamit lola la am bala la mat day ñëw ray place bi ba pare dor la mat su ko défé nak bu dangar ji démé bu da pare dos boba jeex nak ngay door door moo tax da ngay tap rek fekk do dage da dem na bu yagg lol lol la yalla défar yo bo fay tap yow ab dos rek ngay tap mais yo nekkatu fa kon xam nga ne kon yo xereñe na naka noonu tamit yoo fit wi ko yàlla jox boroom xam-xam ne ne bu ko joxoon gaynde yi ñun ñëpp dee a ah yow da ngay toog nekk borom kër sa njaboot ji wër la yoo wi ñëw dal ci sa bakkan bi nga nekk président garde corps yi wër la yore seen fetale yoo ñëw dal ci sa bakkan xam nga ne kooku bu ko gaynde yi ñemee woon ak ñeneen ñi ñi fit ñëpp dee kon ni mu amee yëg-yëg ak ni mu amee yëg-yëg yoo bu la dalal tey boo yëngatu ba ne yaa kii rek naaw na dafa am yëg-yëg yëg-yëg bi nekk ci moom presque nekkul ci beneen it ba nekken nekkul ci beneen rab ñaar juróomeel bi yoo dafa am itte yitte rek moo tax muy naaw am na tànk bu ko neexee dox ca am na ay mbagg bu ko neexee naaw ca te naawaayam bi lu gaaw la boroom xam-xam yi ne nañ benn waxtu bu nekk yoo mi ngi ciy naaw ñetti kilomètre ñetti waxtu bu nekk rek benn waxtu bu nekk rek mu ngi def ñetti kilomètre ci naaw waaye su boobaa na juróom-benni mbaggam yëpp lay utiliser su boobaa juróom-benni mbaggam yëpp dana ko yëngal juróomi téeméeri yoon pour mën a hegg foofa kon nga xam ne yàlla bindul lu xeebu ñoo dul xam rek mais yàlla lu mu bind rek loola lu màgg la waaye nag nit kii moo dul xam kon gis nga yow mii ngay xeeb moo ëpp ganaar hitte ganaar ñàkk hitte rek moo ko teree naaw moo tax hitte lu baax la boo fi yoree xam-xam yor fi lu nekk taxamoo hitte doo jariñ sa bopp doo jariñ kenn waaye hitte rek lu xam solo la Cheikh na Tidiane wax na ko himmatul insaan qaahiratul akwaan lu xam solo la waaye ganaar moom mi ngi nii mook cokeer cokeer ëpp ko dunku te wax dëgg yàlla cokkeer ëppul ko poids tana ko ëpp poids te mi ngi naaw waaye ñàkk hitte tax moom mu toll mi ngi taxaw rek di dox rek du dem fenn kon yow ko am hitte la te hitte baax na dorop ci doomu aadama kon yoo lii lépp yàlla def na ko ci yoo nag ay xeet la ni doomu aadama yi nekkee ay xeet ay raas yu wuutee ni la yi nekkee ay raas boo demee ci monde bi yoo xe yoo wu ne ak xeetam waa moroomam ma duñ benn waaye yoo nag wi ciy matte di lore rek mooy yoowu jigéen yoowu góor moom du lor kenn yooyu nga xamante ni ñooy nekk ci biir kër yi foo leen fekk rek yooyu yoowu yoowu jigéen la moo tax alxuraan ba muy tudd fii yoowu jigéen la tudd tudd yoowu góor yoowu góor amul problème ñu ne moom bisu mariage bi rek lay génn bu dul loolu rek du génn bis boobu rek bu dul yooyu kenn du gis yoowu góor kon yoo li ci yàlla dëxëñ boo demee ngi seen xam-xam màcc ci yoo la wala nga dem ci téere bu ñu tuddee xayaatul xayawaan dana la ci wax lu xóot xóot ci wàllu yoo kon yàlla tudd lu xeebu yow yaa ko dul xam rek waaye lu mu tudd rek lu màgg la euh, foofu nag yow yoowu jigéen moo ëpp doole yoowu góor moo ko ëpp kartan moom tamit mooy mënq mooy mënqee deret feneen ñëw sol la ko feebar bu dal nit rek mu jëlee ko ci yow rek yow wu jigéen la waaye duhut yoo yoowu góor woo gis tamit ba tax ngay sànq takk sànke rek euh, mu ñëw ñëw takk foofa di dee wala ngay jël di pompe yoowu jigéen la mais yoowu góor mënoo koo gis ba koy def loola kon yàlla ku xerañe la lu mu tudd lu xam solo la moom lay wax si nii ci ci yoo woowu muy lépp nga xam ne bàyyiwul benn détail moo tax mu ne inna allaha naka yàlla laa yastaxyi du bàyyi ngir xeras an yadriba muy sadd masalan léeb maa léeb wow baxudatan yoowu jigéen la fa maa fawqahaa wala lu ko kawe fa maa fawqahaa wala lu ko gën a xées loolu la kasaa yiw gëm fa amal lazina ndaal ñi nga xam ne amanoo gëm nañ yàlla fa yaalamun danañu xam ne annahu naka moom léeb woowu alxaq mooy dëgg ju sax min rabbihim gu bàyyi ko seen borom wa la lasin ndaal ña nga xam ne kafaroo weddi nañ yàlla fa yaqulu ñoom dañuy wax ne maada arada an la nan namu laahu yàlla bi haasaa ci lii masalan ci léeb yàlla ne yu dilu dana mu réeral bihi ci léeb wi kasiran ñu bëri wa di dana gindi bihi ci léeb wi kasiran ñu bëri waaye wa maa yu dilu du sànq wa maa yu dilu du réeral bihi ci léeb wi illa al faasiq lu dul kàccoor yi rek ñoom ñoom la ci réeral ñooñaay ñan mu ne allazina mooy ne nga xam ne yanquduna danañu firi ahdallahi kulli rek yàlla gi min baadi mithaaqi gannaaw feddali ga wa dana ñu dagg maa amara laahu la digle na yàlla bihi ci moom an yusala ba jokkeef ko te mooy ak bokk wa dana ñu yàq fil ardi ci suuf ulaayika yooyu gaay melokaano melokaan yu bon yi le hum ñoom dong alxaasiruuna ñooma di way perte ña yàlla wax na ci lépp ci yoo ni mu mel bu ko neexee yàlla moo moom kulliyaat yi yàlla moom moom jusiyaat yi dara rëyut ci kanamam waaye dara tuutiwut ci moom tamit bu ko neexee mu lépp ci yoo tontu munaafiqiina yaag musrikiina yi wala mu wala mu wala mu lépp ci lu gën a tuuti yoo bu ko neexee mu lépp ci yoo bu ko neexee mu mu mu mu lépp lu gën a kawe yoo baatab fawqu maanaam ildaat la mën naa firi maanaam lu gën a kawe mën naa firi lu gën a xiis mi ngi mel ni baatab waraa rek wara manafiri gannaaw manafiri kanam yooyu yëpp kon noonu la tax moo tax ñi di ko firee ca yu gën a kawe ñi lu gën a rëy ñi jàppee ko lu gën a tuuti waaye ñi xam gëm yàlla pire xam nañ ne lii waxi yàlla pire la amuñ ca commentaire gëm nañ ko gëm gu wér naññi ña gëmut yàlla nag ña ngay nekk di ko jéem ay détail moo tax ñoom danañ sànkoo ci léeb wi ba yàqule ña gëm yàlla nag dafa leen dolli xat ak gëm su ko defee tamit ñi gën a baaxle ñuy yàqule ñoon tamit mooy ñoo xam ne kóolu rek yàlla gi leen waxoon ne jokk yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam topp sunnaam gëm ko te ñu waxoon leen ko ca téere ya yonantu yàlla Isa wax leen ko yaati min baadi yasmuhu ahmadu yonantu yàlla Moussa wax leen ko ak yonantu yëpp bañ ñëwee dañoo firi loola ngir bañ seen càng ga réer leen yàlla tamit dig leen nañ jokk bokk ak noo ko mën a jokkee ñoom bañ ñëwee dañuy dagg ak bokk te ku dagg bokk yàlla dagg la ku yàlla dagg doo am lay doo am leer su ko defee tamit loolu lay wax ñit sax fi rek di yàq suuf di ko gàllankoor ñooñu nag ñoo ñooy peñ ñoo xam ne perte nañ ci àdduna perte ci àllaaxira yàlla ci yàlla musal aaya ji tegu ci yàllaay héemu nu ko nit di weddee ak fi mu jaar ak moom nit daal gëmam yàllaam duwut kéemaan weddeem yàllaam mooy kéemaan moo tax mu ne kay fa takk furu nag kaawteef naka ngeen di weddee xoola fi ma jaar ak yéen yàlla fan la mu ne nekkoon ngeen kenn ku ne ci yéen toqantal ma mu ma dénk ci ay ay ndiggi góor ñu jël loola ma dénk ko ruxu mu jigéen ña ma jël ko fa def ko la ma ko def man yàlla neuf mois ci la gën a not wala six mois ci la gën a tuuti wala juróomi at mbaa ñeenti at ci li gën a bëri nga génnee fa jaar ci yoon woo xam ne yëg nga ne sa xajoo fa ndax alquran ne suma sabila yasarahu noonu la ko yàlla waxee su ko defee tamit nga ñëw ma lay màggal mënoo dara ngay dund di dem ba sa diir jeex nga dee nga dee war a dekki téye sa karne jëf ma war laa fay benn nga dem aljana safara fi yëpp ma war fe jaar ak yow nga di weddi man man yalla kon fi yalla jaar ak nit dal ba tax nit diko weddi mom xéem na ko mom lay wax si nii moo mu ne kayfa takfuruna takk naka ngeen ni weddi billahi ci yalla wa kuntum ta nekkon ngeen am watan di ay tokantal maniyu ci sen ruhumu ci sen manam ah, ndigi wajuri mu denk ko ruhum ya fa ahyaakum yalla dundal len fa su ma yumiitukum topp mu rey leen ba seen diir jeexee su ma yuxyikum topp mu dekki lil leen gannaaw ba ngeen deexee ngeen dekk seen karneeb jëf ya su ma turjaxuna topp def na delloo leen yéen ñëpp pang leen illahi jëmee leen ca yàlla lii la leen yàlla def huwa moom la si mooy buur ba nga xam ne xalaqa bind na làkkum ñaal leen maa fil ardi li nekk ci suuf jami'an mbir muy mboole seen su mastawaa topp mu jublu ila samaay jëm ci asamaan fa sawwaahunna mu mu jël leen sab'a samaawatin yi juróom-ñaari asamaan alimun xamaa kon la bi ku ci lépp lëf de kon yàlla moomu moo jaar ak yéen fii ci bind jaar ak yéen fii ci dundal jaar ak fii ci màggal jaar ak yéen fii ci wërsëgal jaar ak fii ci rayleen leen jaar fii ci dekkil leen jaar yéen fii ci pay waaye gannaaw bam leen defee lii xoolal lim leen defal maa leen bindal suuf na ko waxee woon lépp gannaaw si gi bindal leen asamaan aaya ji nag moom ak aaya jam waxoon ne wal arda ba'da zalika daxaaha ta maanaam dàqwante wuñ defuñu tanaaqut fii boo déggee mu ne maa bind suuf lépp fa mel ni kon fa bind suuf lépp ba pare door a dem bind asamaan déedéet dafay lim xéewal yi rek dafa bëgg a wax defal naa leen xéewal ak suuf defal naa leen xéewal ak asamaan xam nga boo boo defee nit ki ay xéewal di ko ñaax soo may yëpp sa ñàkk jomla mayoon naa la fi ñaari junne jox naa la fi mbubb moo sol jëndal naa la oto loola day wax rek waaye ràññalihu ne bii moo jiitu bii wala bii moo jiitu bii waaye day lim xéewal yi rek mu ngi mel ni taskatu xibaar bi joxe xibaar waxtu une heure ci télé bi mbaa ci rajo yi dana wax rek li xew ci bis bi yëpp mais du nekkul fa di faral sànc ne bii njëkk xew bii tegu ci bii tegu ci bii tegu ci mais l'essentiel daal lii xew na rek yàlla tamit loolu lay wax fii waaye nag ñëpp xam nañ ne asamaan la yàlla mujj a bind suuf la njëkk a bind ba pare mu nekk benn kuratu avant mu koy tàllal mu bind asamaan installé ko ba pare door a jël suuf nag tàllal ko ñu ne bu ko yàlla tàllaloon suuf ba pare door a bind asamaan ñu ñàkk xel yi dañuy wax ne dafa taxaw ci kaw suuf door a bind asamaan yàlla wan ne man xaw ma fu may lu may dimbandikoo moo tax mu ne wal arda ba'da zalika daxaaha kon da dàquwante wuñ su ko defee nag mu bindal ñu jëfe ñu asamaan ulamaa wa usul ci aaya ji la ñu jugee ne xalaqa lakum maa fil ardi maanaam yàlla daganal na leen lépp lu nekk ci kaw suuf ñu ne mooy cosaanal cosaanal mbir yëpp moo doon dagan bu ci cosaan bu njëkk ba dara xaraamutoon moo taxoon nit ki mën a takk ko mbokk ak ndey ak baay xaraamutoon doomi aadama yëpp noonu lañ takkantee koo bokk benn ndey ak baay ngeen ngeen mën a takkante booba xeeti lekk yi benn benn xaraamutoon mbaam xuux ak goloog xajak lépp lépp yomboon xam naa jooju jamono yàpp yomb na booba moom dara xaraamut xeeti naan yi tamit benn xaraamutoon sàngaraak lépp benn xaraamutoon gannaaw si gi nag ci la yàlla segg yu xaraam yi mu génnee ko ci biir yu dagan yi mais cosaanal mbir yi lépp a daganoon ñu ne aaya ji koy tegtale ci alquran mooy huwa alladi xalaqa lakum ma fil ardi jami'an su boobaa nag xalaq bi maanaa axala yàlla dagan na leen lépp lu nekkoon ci kaw suuf waaye foofa la xem nag buñ ca continué ne li ci kaw suuf lépp dagan na continué lu nga neex def ko ca loolu tamit njuumte la boo demee ki téere bu ñu tuddee maanaam al adwa tafsir bu baax la moo koy wax di ko leeral kon léegi loolu pare na ca bind nañu bindalal ñu léegi nag mi ngi ñuy wax di ñu ñaax lim ñu defal fa am lu ñu yàlla defal de mu ngi ñuy ñaax defal gim ñu defal suñu maam Adama bindal ñu suñ maam aadama ba pare muy premier nit yàlla jël ko def ko muy xalifaam ci kaw suuf buy wëyal ay xatteem xam nga loolu daraja ju la jooju daraja ku ko defal sa maam soo amee jom war a gëm ki defal loola sa maam war koo wéetal loolu nag lay wax si nii boo gisee mu koy wax tamit ne inni jaa'ilun fil ardi xalifatan ak la ko malaaka yay tont ak iblis li ko waraloon mooy yàlla bi mu bindee suuf ba pare mu tàllal ko bind asamaan installé ko dafa jël malaaka yi dëkkal leen ci asamaan malaaka yi nag malaaka mu la gën a dëkk ci asamaan ju gën a kawe rek moo la dàq jaamu yàlla moo la gën a baax bu la dëkk ci asamaan bi gën a suufee rek moo la gën a néew jaamu yàlla moo la gën a xeebu mu jël nag suuf si dëkkal ci jinne yi asamaan si première mu dëkkal ci malaaka yi deuxième malaaka yi ba mu jeex léegi nag jinne yi bañ leen dëkkalee ci suuf ñu nekk fi di yàq suuf di moy ci ak njaalo di reyante rek di turantey deret loolu nag metti yàlla yàlla ebal malaaka ya nekkoon ci kaw suuf ne kaay leen ngeen dem ci ah, ci suuf ngeen dàq jinne yi jëlee leen foofa ñëw dàq leen jinne yi dem dëkk ca xuur ya dëkk ca montagne ya dëkk ci gawar garab yi suuf si nag wéet su ko defee nag euh, malaaka ya nekkaale fa ñu ngi boole di nekk ci asamaan di nekk ci suuf léeg-léeg ñu yéeg ci kaw dem jaamu ji yàlla léeg-léeg ñu wàcc di jaamu yàlla iblis nag comme dafa daan ànd ak ñoom ca loola nekkoon bëkk néeg léeg-léeg mu yéeg jaamu yàlla ànd ak malaaka yi mu wàcc ànd ak moo tax ba yàlla lay digle mbir yi mu fekk ko fa ba mu leen usjudu li aadama iblis fekk loola ca ca ndigle yi mu bokk ca léegi nag euh, ci loolu daq nañ ne la suuf toog ab maanaam ab diir kenn dëkku fi loolu mi ngi mel tey réew moo dem bu ñu amee problème ci affaire yi coup d'état wala euh, am benn ay problème ba gouvernement ba am problème ñaareel dañuy wax ne kon nañ jël kenn mu huutuwaale président bi feek juróom-benn weer dañuy defaat ay wate nangam ak nangam loolu nag loolu nag moo doon huut ak malaaka yi ci suuf waaye du wut pour ñu ñëw fee nekk carrément rek noonu nga ko mën a déggee kaay leen ngeen nekkaale fi ba mu hut ñu fi nekk bañ fi nekkee nag diirëb juróom-benn weer yooyu ci waxin yàlla ne léegi nag dama fee bëgg indi ku fi ku fi huutu jinne yi war ñëw dëkk fi nag inni jaailun fil ardi xalifatan malaaka yi nag gis seen bopp mooy ki wane woon ne man kat juróom-benn weer laay def bu jeexee ma dem mbir ma neex mu ne damay far toog léeg nga dégg ko malaaka yi tamit na yow yàlla koy hutati ñun doy nañ di looy koy hutaat ñun doy nañ atajaalu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dimaa da nga fii nar a indeeti ki fi newoon rek kuy yàq suuf di agressé say tour deret kuy yàq suuf topp bakkanam di mooy yàlla ñun doy nañ ndax wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddisu laka ñu ngi wax qualité yi ñu am yàlla ne baax na inni a'lamu ma la ta'lamuna xam naa lu lu ngeen xamut ba bàyyil bañ xegg ca nag loolu nag lay wax si nii ci aaya yi ñu bëgg a firi moo tax sama borom ne wa fàttalikul id qaala ba waxee rabbuka borom sa lil malaykati ñeel malaaka yi ne inni naka man jaa'ilun aji def si laa fil ardi suuf xalifatan ku may huutu muy muy aadama qaalu malaaka ya ne ko atajaalu ndax da ngay defati fiha ci suuf man yufsidu kuy yàq fiha ci suuf ba mel ni jinne yi fi nekkoon wa yasfiku muy tuur dima a deret te nax na ñun ñii nu sabbihu ñu ngi sax dàq di la sàbbaal bi xam di ka mbir mu ñuy làmboo sant sax wa nu qaddisu ñu ngi sax dàq di la sàllal maanaam laka ñaan la su ko defee nag xaala sama borom indi inni naka man aalamu xam naa maa laa taalamuuna lu ngeen xamut ci mbiram xilaafa ak maslaha ga foofa rek ma la xamal moom yàlla aadama aadama al asmaa tur yëpp kullaha yëppam laa wax suma aradum topp mu gaaral tur ya xalal malaaka ci malaaka yi fa qaala mu ne am bi woon ni solo leen ma bi asmaa yi haawulaay ci tur yii gaay lépp nga fa woon in kuntum de nekk ngeen saadiqine di way dëggu ne munu maa bind ku leen gën xaaloo malaaka yi ne ko subhaanaka tudd nañ sag sell laa ilma déet benn xeetu xam-xam lanaa di ngi ñeexal illaa maa lu loo ñu xamal te lii ci innaka naka yow anta yow laa wax alalimu yaay xamaa kon bi xakimu yaay ci xereñe te lii ñun xamuñu ko foofa nag yàlla wane ne ak xilaafa ak mage du ko yore yàgg fi ak xilaafa mbaax du ko yore mais xam-xam a koy yore jël aadama rek mi mujj a juddu roof ko xam-xam boo xam ne nekkut ca malaaka ya te malaaka ya ko mag ñoo ko daq jaamu yàlla yàlla nag ne ah mi ngi nii nag kon Euh, xam-xam ci laay fale xam-xam baa ngi nii kaay leen ngeen wax ma lii booba nag foofa dara amul lu fa nekkutoon lépp lu ñuy utiliser fii tey ci àdduna ma ngi fa woon télévision ak nuñ koy taale ma ngi fa woon rajo ni ak nuñ koy taxalee portable ak niñ koy utiliser mbaxana ak nuñ koy solee ay yére bàyyiwul dara site internet yi nuñ say duggee lépp amul dara al asmaa kullaha bàyyiwul dara malaaka yi xool xamuñ ca dara ah, yàlla nag ne aadama nag yow laa sol xam-xam bi xamal leen lu sey say déggee kon ki xam lii sa warugal mooy xamle boo xamee rek xam leen te yàlla tax mu xamal leen moom tamit yàlla nag ba mu leen xamalee leen ki xam nag comme moo leen xamal ki muy xamal da ko war a teddal da ko war a màggal kon nag usjudoo li aadama yéen ñoom ñëw leen ngeen root sujootal aadama su ko defee nag ñu màggal ko iblis moom xool ak mageel xool tamit yàgg jaamu yàlla ne maa ko fi maa ko dàq jaamu yàlla maa ko maa ko mag ah, maa ko gën kasaan ah du ko du ma lu tax mu ne xalke suuf a gën safara yaakaar naa gaay yi yëngatu ci pàkk yi xam nañ ci dara boo jëlee juróomi million dénk ko suuf juróomi at boo ko joxe mu jox la trente millions waaye boo jëlee juróomi million dénk ko safara une minute laa la may mu lakk ko léegi léegi du ko mat sax kon moo ko gën moo tax keroog moom ñoom ñëpp wax nañ ko ñoo tax ñu ne yàlla it nii kuntu turaaban kon daanu na beneen bi tamit daanuwaat na tekkiwul ne ku la gën cosaan moo gën man ngaa gën nit ki cosaan yaa ko gën bàyyi fuuf gën ko maam fuuf mu ñëw gën la mbir mi nekkul foofa kon même même bu fekkoon ne euh, safara moo gën ban taxul mu gën aadama kon mën naa wax ne